yokk le nombre des femmes gën ko yokk on sait que nag armée euh, c'est une force de de de défense euh, donc kii di force de défense dina am disponibilité à tout moment en tous lieu ce qui fait que nag comme ñun jigéen ñi dañuy am maternité am ay congé de maternité am ay heure d'allaitement kon euh, nombre jigéen bi euh, am na fu muy yem par rapport ak orientation commandement bi pour éviter moom ay indisponibilité parfois ñu comprendre que euh, kii armée mu ngi dawal principe égalité par exemple parce que ubbi na école militaire de santé par exemple góor yeeg jigéen ñi ENOA góor yeeg jigéen ñi ñu ngi fa la la plupart des écoles militaires actuellement ubbi nañ ko góor ak jigéen donc am na déjà principe d'égalité Euh, principe euh, d'équité égalité bi toujours soo xoolee emploi yi su jigéen compétent yi góor compétent ku ñu war a jox emploi bi lañ koy jox amul kii góor la walla jigéen la l'essentiel nga remplir critères yi ak ancienneté bi ñu jox la ko